bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibni abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim ibaadallah ixwatul iimaan ma'alil ulamaa ashaaba saada asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki te di yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balwaq di leen balaq di ñaan yàlla yal na nu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci ndakaaru dellusiwaat na nag yéen seen émission bi ñu tuddee euh, jaar-jaar yonent yi alayhimu salaatu salaam te ngeen ci ànd seen mbokk alxaaji oustaz Alioune Mbaye ginnaaw lool nag ñoo ngi doolee ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal na doolee faj ajo yi teggi tiis yi saafara jàngoro te jégale bàkkaar yi yàlla ñu yàlla gën a xëy ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yëgul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule lu nu am yàlla nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla nu am yàlla yàlla ñu yàlla gën a sàmmal boppam yàlla ñu yàlla gën a téel boppam yàlla ñu yàlla gën a aaral boppam bi jaay sil wujud wa alami shuhud lu nu jaamu yàlla mu néew ak mu bari yàlla na ko yàlla nangu te fulandil nu ko loolu mooy yàlla mu néew ak mu bari ci wax ak ci jëf yàlla na ko yàlla jéggal te suturaal ñu àdduna ak àllaaxira ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ñëpp di balu ñëpp àq fas yéene dellu si ak yéen te nañ leen ko diggee woon ci àjjuma yi lañu génn xam ngeen ni ñu ngi woon ak yéen ci jësbul quluub ilaa allaamil xuyuub bu mawlaana cheikhul xadim radiallahu taala anhu téere bii sëñ Tuubaa bind tudde ko jësbul xulub maanaam ñoddi bif xëcc xooli jaam yi ci loxo yi ibliis jéeme ko ci loxo yi seen borom subhaanahu wa taala yaakaar naa ni e, def nañ ci ay épisodes yu bare bari ci li nu ci xam ndax waxi mag boo koy waxit nanga ci digg doomu ndax loo ca xam am na ko ca xam lu ko ëpp noo ko déggit am na ku la ko gën a dégg waaye li nu jublu ci téere mag ñii mooy yokk nit ñi ngi leen sopp te xamuñu leen ñu gën leen a sopp ñi leen topp te xamuñu leen ñu gën leen a topp te xam ni ku leen topp fa ñu la jëmee mooy gën fi nga ne ndax ñoom lu ñu am rasulullah sallallahu alayhi moo ko moom te rasulullah sallallahu lu mu moom borom bee ko moom te loo am nag bu ca yàlla amul cër amu ca wàll na la wóor ni amoo dara bist na jot nga daw bàyyi cër boobu mbaa cër ba daw bàyyi la te woo dawet fa ngay daw jëm mooy fa yàlla nekk ak fa rasulullah sallallahu nekk ak alquran ak gaa yu baax yi moo tax xiir nit ñi ñu jëm ci ñoom ak ñu yokk leen bëgg ñiin ñëpp la war ndax téere yi ñu bind bàyyi ko fi ak mag ñu baax ñi nu yar bàyyi leen fi ak kàddu yu rafet yi ñu fi wax bàyyi ko fi sunu njariñ la ñun ñii fi des kës néew kon bu nu ko dul waxtaane du nu ko laal du nu ko tudd xanaa di ko barkeeloo amul fenn fu sikkim sedd faw ngay barkeelu feneen baa ngay laal feneen baa ngay jégg leen di ko indi waaye Sëriñ Tuubaa nee na daa gën a neex a dégg di wax lu macce bind walla ngay wax lu Victor Hugo bind wala ngay wax keneen ci magi tubaab yi yooyu ñu donte ña leen gëm ak ñenu jàngal ñooña doy nañ leen sëriñ waaye bu mu tax ñu it ñu xeeb li nu am ba du nu ko waxtaanee ndax eh, yaakaar naa ni bu kenn ku dee fompee sa mag ba mu set ñun bu nu fompee suñuy mag indi rangale leen kenn du nu gën le moom la sëriñ daan wax ni arab yi bu nu gënee magi démbit ñu gën leen magi tey kon nag suñu mag ñii yal nañ leen muurloo ñu baax rek leen taxoon jóg ñu tegu ci njub rekk leen bëgg lañu bëggoon fexe ba jubag suñu borom mi nu moom fexe ba dëppoo tey roy ki yàlla yu noon ci ñun ndax ñoom mosuñoo teggi seen tànk ci tàggum yonent tànk ci tànk yoon bi sallallahu alayhi wasallam mosuñoo moyale seen kàddu kàddu yonent bi sallallahu alayhi ku leen topp ku leen bëgg ku leen frekante ku leen di déglu ci loolu lañ lay xiir guddi ak bëccëg looloo waral adduna bi ñëpp yàlla jox leen seen xol ñu riir jëm ci ñëw wuti leen ndax reera nga fa aña nga fa ndékkee nga fa su ma nee aña nga fa reera nga fa ndékkee nga fa nag du cere ju ñu fay lekk mbaa ceeb mbaay mis wi waaye jox la lu doy sëkk sa ruux jox la lu doy sëkk sa bakkan jox la lu doy sëkk sa sa xol ba nga xamante ni sa sa jëmm ji keneen du ci am cër ku dul borom bi subhaanahu wa taala yaa ngi koy mën a amee sunu mag ñu baax ñi kon leen yàlla fayal te gërëmal nu leen bàyyi fi ñi leen fi nekkal may leen sago ak wér ba li ñu yéene liggéey lislaam bi ak ñi leen ñi leen fi wuutu woon liñ fi def ci lislaam yàlla may leen ñu mën koo def ba àggale ko ba naan leneen te yàlla sàmm leen bàyyi leen fi bàyyi seenu njaboot ñu ngi leen di sàkku ñaan ci ñoom di sàkku eh, bootu ak doon njaboot ci ñoom saa su nekk waxtu wu nekk guddi gu nekk doon njaboot ci xol daa gën doon njaboot nag ci jëmm ak ofareeg dajaloog nit ñëpp toog ngay wane sag taalibe wala ngay wane sag fés yàgg mën nga faa tooñ taalibe boo dul bët te la gis mën nga faa tooñ taalibe booy gis te bëpp la martaba yii yëpp mën naa am moo tax orma ci sunu këri diina yi ak yar teggin lu ci nit am rek doyul lu ci nit am rek doyul ndax nañu doon ne alxuraan ji doon na kii bi noonu la doon ne taalibe jinne yi noonu lañu ñu doon ne tam taalibe yi euh, euh, taalibe yi martaba yi ñu baax yi ndax yonent yàlla Suleymaan la mu amoon yóbbuwu ko yonent yàlla Muusa la mu amoon yóbbuwu ko yonent yàlla Isa noonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu ba ba àdduna bi tukki am na ay kéemtaan ak ay ndawi borom bi yoo xam ni danañu sowe ñi yàlla bëgg ñu sowe ba ñu bëgg ndawam yi mu yónni ci suuf ak ñi koy doxal ci tool bi ku leen topp texe ku leen toppul te noonu woo leen mën ngaa texe waaye ku leen toppul noonu xanaa di fay ak di suul li ñuy def mën ngaa texe di fii texe di fa nu jëm texe di fii texee di fa nu jëm nag ba te rombul dund ci fitna dund ci jafeñ-jafeñ ba law la ngay lekk sax doo am temps mën koo lekk ak teey gi bakkan mbaa doo mën na lekk mbaa naan ak teey bakkan ndax bis bu ne yaa ngi dund fitna bis bu nekk yaa ngi defe ni tey la ñu dal ci sa kaw bis bu ne yaa ngi defe ni tey lañu tey lañ lay faagaagal insécurité ak ñàkk dal googu nag moom moom la sunu borom doon wax waa Quraysh ca li ilaafi Quraysh Serigne Cheikh Tidiane si firi mu rafet sunu magom daara oustaz Alioune Sall li ko dëkkee wax bis bu yàlla sàkk maag sëñ Mbàkke yàlla na ko yàlla sàmm te may ko wér oustaz Alioune Sall daani sëñ Seex nee na li ilaafi Qurayshin ah, am na xe am na abatit te waa Quraysh ilaafihim seen abatit boobu mooy ban mooy rexlata chitaayi wa sayfi dañ daan jànq bu noor jotee tàngaay wi am ñu ni kon nañ dem boori yaman am na géej am na ay marché hebdomadaire bu fekkee fekkente ne nawet bi ak sedd bi ñu ni ko nañ dem saam foofa xaw naa tàng am nay montagne am na nangam nangam nangam suñu boroom ni habitude boobu waa Quraysh amoon nag mu nga ca ñoon waaye am na bu ko gën mel nañu suñu boroma boobu ban moo ko gën mu ni fal yaabudu rabba haazal bayt toog fii te jaamu yàllay néeg bi yàlla mi fi samp néeg bii muy kaabatulaay musharraf digal malaaka yi ñu tabax ka ginnaaw ba maam aadama tabax ginnaaw bi maam ibrahima dekkal ko mook ismaila mu nekk fi symbole ci kaw suuf àdduna bi wërngal këpp amul keneen wala leneen wala feneen fu am lu mel ne lii fi màkka suñu borom ni ko jaamu ki fi def lii kay moo gën kan la allazi atamahum min juin te su ngeen ko jaamoo yàlla jooju atamahum dana leen jox lu ngeen lekk ba suur jox leen lu ngeen naan ba màndi wa amanahu min xawfin jox leen xel mu dal mu ko mën a lekke <laughs> foofu laa bëggoon jëm jox leen xel mu dal mu ngeen ko mën a lekke xel mu dal mënu ko mën a lekke bari na ko am teraanga te mënu koo lekk bari na ko denc ci banque yi ay multi milliards te mënu koo génne bari na ko yor loolu jeex te ñemewoo koo génne kon am am bi lu muy jariñ am na réew yoo xamante ne am nañu pétrole am gaz waaye tey amuñu sécurité kon loolu lu leen jëriñ gaz ba pétrole lu mu leen di jëriñ am na réew yu amul dara yoo xamante nii dañ leen jàpp ni ci réew yi pauvre yi lañu léeg nga dégg ñi politique de kaas ak sànni xeer suñu réew mi ci suñu wàllu économie di jooy ak weer weer yi ak di dox ci xel yi nit ñi di wane ni Sénégal dellu na ginnaaw ci wàllu économie waaye bu ñu nee wàllu économie ñun ci lan la ñu dellu ginnaaw ñun amul woon pétrole waaye amoon nañu suñ Bàmba amoon nañu Alaaji malik am Mawlaana Cheikh Ibrahim Niass am nañu maam Khalifa Niass am nañu maam Cheikh Omar Fouti am nañu maam Limaamu Laay am nañu maam Boukounta ñooñu nga xamante ni ay werekaani borom bi lañu tax na ñun ñeewuñu borom pétrole ndax ña am pétrole am gaz te amuñu mag mu leen dalal ba ñu mën koo jëfandikoo nu ñuy mujje xeex ci seen biir ak guerre civile ci seen biir ba tax guerre civile ba xeex ba tax na tey mënuñoo exploiter mbel may génn ci réew ma mbaa pétrole bay génn ci réew mënuñu ko mënuñu ko amuñu ku leen yee ba ñu mën a yeewu loolu dañ kon sunu mañ ñi jar nañu bàyyi xel ñu ngi jooy ak a jàmbat jamono bi ñu toll insécurité bi am ci suñu réew muy wàllu insécurité agression agression yi li muy bari bari bari bari li ko fi indi mooy liberté bu ëpp liberté ak démocratie bu la nee dañ lay jox liberté liberté daam foo yem waaye bu liberté amul fu mu yem nga ne leen oto bu amul frein ngay doon oto bu amul frein di daw jub aw mbooloo bu mbooloo ma dawul fu nu jëm ca seen kaw la jëm kon ñun suñu liberté mooy liberté boo xam ne mi ngi mel ne oto bu amul frein lu la neex wax lu la neex def bu fekkoonte ne ca bu njëkk liberté bi ñu amoon ñun dañ doon def suñu liberté rek te di eh, mu yem ci wax dañ naan Sénégal xamul xeex xamul xuloo mën nañu mën nañu waxante nag ba tegante dënn waaye ginnaaw ba dañu joxante loxo rek mu jeex waaye bi nee ba gën a renforcer droit de l'homme droit de la femme droit de de de l'enfant yooyu yëpp ñu renforcer ko indi ko dalandoo ci kaw yaru mag ñi dalandoo ci kaw njàngum alquran mi dalandoo ci kaw ñi fi yore baatu diine di def tout pour wàññi seen doole ak di wàññi seen kàddu ñu indi yoo xamante ne kenn xamu ko woon tabaxi école defari liise yu dul jeex te duñ la yar duñ la jubbanti amul lu xaraam amul lu xaraamul loo sentir noonu la looy bëgg a def noonu la ci ci ci démocratie ak suñu liberté nga ngay gisee élève bu am sañ-sañu tëj professeur am wala maître am kidnappé ko mbaa élèves yu am sañ-sañu taal bureau recteur mu tàkk ñëpp du xool ñu ni c'est la démocratie ñu ni kooku moo war a yor réew mi ëllëg kooku moo war a diriger Sénégal ëllëg ñu ni sañ-sañam àgg na foofu ci démocratie ak liberté ak droit de l'homme ci la yooyu di ame ak rayante élèves yu toll ci ñu defaral leen tàggat préparer leen ba relève bi bu duggee seen loxo ñu indi amélioration bu am solo ñooñu la ñuy jël def leen comme bàyyi ma ay étudiants yuy reyante ci seen biir bu yàgguloo njaay nga dégg xale bu jigéen bu nu rendi foo dégg enquête bi ba léegi mi ngi ci suuf ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay étudiants ngay gis seen njiitu réew dem ba ca biir école ba di leen seet si ñu ñu dar mbal ngaa ko xeer ak yat taal fépp loolu loolu lu mu lu muy firi lu guerre naru la ñëw loolu toll nañ yitt réew dem ci pays barab ànd ak alkaati bi ki police bi ki soldaar ànd ak ay militant te moom la mu fay indi lu yàgg lu may dinaa fi def lii wala dinaa fi wax lii la gënoon rafet kay mooy tàcc ko te xaar ko waaye ay xeer loolu yëpp ci turu démocratie ak égalité ah ak multipartisme ak yeneen ak yeneen moom laa wax ni la bari na ñuy jàmbat ay agression mais li fi indi agression yi mooy liberté liberté boo xam ne amul fu mu yem nga ne yow lu la neex wax lu la neex def te du mujj fen ku la neex saaga ku la neex yàq deram euh, loolu musiba la te ba léegi gisaguñu lu ko fi dindi mag ñi nu fi amoon nag ñoom li ñu jàppoon ni mooy liberté dagg bu mu jaam yi mooy fexe ba nit ki xam boppam xam boroomam xam fu mu war a yem xam lu mu war a wax ak lu mu warta wax dug ragal dug dictature waaye boo xamee foo war a yem xam loo war a wax sa moroom xam fa mu war a yem xam la mu war a wax jàmm rek moo naan ñooy léegi nag ñiy wax ñu ci bari xamatuñ lu ñu war a wax xamatuñu fu war a yem ñu bari dañu bëgg lépp leer secret amatul li ñu tuddee secret d'état amatul lépp dana fàng ñu tegatoo ci suñu bët bu yàlla bëggee woon noonu du sàkk bëccëg ak guddi tey ñu ngi xas suñu assemblée bi guddeeg bëccëg naan assemblée bi baaxul assemblée bi am ñawaaxu jëm fa ñii bu ñëwee ñooy yées ñi fi ne lu tax ma wax loolu mooy secret yi amoon ci assemblée nga xam ne kenn daaw koon def en direct lépp bu ñu nee ma dem liberté d'expression liberté de presse li may wax ci wàllu liberté ñu ni waaw la xew assemblée lañu ko def en direct nit ñi di ko gis waaw kan nga gis muy togg di togg ci pénc ma bu dul xew mbaab dëj lu tax aw waañ am ci kër la ñuy defar ak la ñu bëgg bu ñu ko taajee mu baax kenn du ko togg ci kanamu mbooloo mi léegi nag ñun kon nañuy defal démocratie ak liberté maye na loolu poñante ak xët xët xëqante yàgg na am ci ay politiciens yàgg na am ci assemblée mais ña ña ca seen yoon nekkul seen yoon nekku ca ndax bu naata xam la ca bar ba moom muy naan ba ca bu naata xam la ca dégg ba moom muy naan ba ca ban ba kay député lay mécceem ak la mu war a wax la di njuum teem la di faayam la muy gëmmintu la muy nelaw lu ci yoonu civil bi nekk fii kala la yónni kay yow la nga daj ci yoon yi ba àgg jarul di ko wax fexeel ba jox ko résultat waaye dañu ne déedéet nañu fexe ba léegi yooyu ñu koy génnee en ñu toog ci assemblée ñu ni nañu ko def live en direct nga toog génnee sa internet commentaire yi ñuy xam la ñuy wax ku ñan du ñu xam ku fomp ñu gis lépp ñu koy gis yooyu du dévoiler secret su yàlla bëggoon surtout su yàlla bëggoon lépp ne fàng dana sàkk bëccëg ba pare di sàkk guddi kon kay nañ yëpp ne dàng rek yooyu itam nee leen ci bàyyi xel liberté yooyu nag moo fi indi yii moo fi indi saagante bi moo fi indi agression yi moo fi indi yu bare bare bare bare bu loolu weesoo it bokk na ci la ko fi indi mooy euh, bëgg teraanga bëgg teraanga te teraanga jiit fas yéenoo ko teg ci aw ñaq yaa ngi ko fas yéene teg ci kaw ñépp am dinaa am ci nii mbaa ci naa mu jaral la nag bàyyi ba nit ñi tëdd nga jóg guddi nga ba nga ba paaka ngeen nekk gang di kar nit ñi di dajji bitig yi di kar taximaan yi dee borom biti yi guddee tëdd ñi guddee wàcc ñëpp ñu kar leen lu ci waaye yor ñu nangu ko mbaa ñu faat la def ci seen bopp dikk ni xiim bu bëccëgee nit ñi di nelaw ñu fanaan nit ñi di liggéey ñoom ñu yendoo nelaw bu guddee bu nit ñi dee nelaw ñoom ñu dem di tëdd loolu nag ñàkk ñàkk yar ndax formation bi nu am muy formation école bi su fekkoon ni éducation bi américain yi di def ndax képp kuy doomu américain xaw ma France de waaye américain képp kuy doom ngay góor farata la ci nga dem armée farata ci nga dem armée parce que foofu la ñuy tàggate góor foofu lañuy defaree góor ba nga mat góor ndax góor du kuy takk tubéy rek waaye góor dana mën a supporter muñu xiif muñ guddee muñ lu metti di supporter yóbbaale ñëpp gàddu ñëpp te du wonk du ne on oh, liggéey bay bëgg dee bari na góor ñoo xamante ne dañ naan liggéey ba liggéey bi jeex weeru de nga fayee ko saaku ceeb bi nga samp sa kër mën naa mën na dem ba jeex sa doo ko ko mus ndax lan daw ngir njaboot gi daw ngir ñi la yaakaar daw ngir famille bi nga bokk bañ gàcca bañ gaay demba ngay góor góorgóorlu guddeeg bëccëg loo am bokkoo nit ñi loo am bokkoo nit ñi daa war nga gis ku am benn képp nit ñëw diis la soxlaam ndànk yaag moom nga yëkkati benn boobu jox ko wax sa jabar ni ko jaaral ci ginnaaw nga teggi cin li mbaa nga jaar ci ginnaaw sensé ñu bi yooyu yëpp fa la defar ca lañ ko daan amee moo tax man la américain yi dañ daan yar seeni doom ba ñu mat góor fa lañ lay fa lañ lay defaree nag fa lañ lay xamee lan mooy république lan mooy être américain dëgg dëgg dëgg yow foo mën a nekk jàppal ni yow victoire mooy sunu slogan ndam jël drapeau foo tollu ci so ci ci stade yi ci champ de yi fu mën a doon américain drapeau ca kaw loolu lañu ñu gëmloo seeni doom moo tax américain gëmul defet gëmul ay kat appeek ay nangam nangam wël bi gàng la bëgg loolu ñun ñi amoon nañu ko ndax amoon nañu daara amoon na nu lël amoon na nañu caserne amoon nañu lépp fa lañ daan defaree góor ñi te loolu ba léegi joolaa yi ak balant yi ak séeréer yi ñoom ñu ngi koy dese ndax loolu ñu tuddee lël loo jàng-jàng-jàng maa ngi dégg ci douzième gaynde yaakaar na wala alekaza benn interview boo mos a seetaan ñoom ñuy wax ni ñoom ñëpp ay ay bachelier lañu dañu am métier am diplôme jàng di liggéey kon ku leen xool ci noonu lañuy tàccoo rek ak di supporter nga defee ni ñoom amuñu métier wala amuñu fu ñu jëm wala nga def nii dañ ko def liggéey yaa ngi commencé juum te foofu lañ noonu la defaree góor góor dañ lay defar ba sa xol baax sa jikko baax nga mat li nga doon xam naka ngay sàmmee sa réew naka ngay sàmmee sa drapo naka ngay mën a taxawee di défendre sa couleur nationale réew mi nga nekk itam naka ngay defee ba jàmm di fi am waaw jàmm di fi am suñu waru gar la ñun ñëpp ñu fexe ba jàmm dellu si ci réew mi loolu suñu waru gar la ñun ñëpp amul kenn koo xamante nii euh, dañu ni yow waruloo ko war waruloo cee bokk muy politicien bi muy ustaas bi muy musicien bi muy basketteur bi sportif bi ñun ñëpp tey responsabilité bi nekk ci suñu loos ñoo ko bokk ñu war a taxaw nag défendre suñu couleur nationale défendre suñu couleur nationale mooy fexe ba xam lan mooy république du Sénégal naka lañ ko mën a sàmmee naka lañ ko mën a aare farata la ci ñun ñëpp ndax tey kat bala nga mën a tabax jumaa di noddu jowaal nit ñëpp ñëw toog di la déglu ngay xutba yow imaam bi day fekk jàmm am mais su jàmm amul doo ko man bala nga mën a def conférence maa nga mën a def gàmmu maa nga mën a def tànt nit ñëw day fekk jàmm am te jàmm du caagi noo commune bi ñoo ko war a taxawee yow imam bi nga ne sa yoon nekku ci wala yow nga ne sëriñ bi sa yoon nekku ci il faut nga indi sa contribution defar gi ñuy defar nit nag ca armée ba defar googu defar la genn ci defar yi ndax boo fa génnee rek nga mën a taxawal réew mi bu dee di defar gi ñuy defar nit ci daara ji léegi daara ak école ñoo fi nekkoon école nag moom yàqu na ba pare amuñu nag dara lu ñu leen di mais xam nañ ni daara moom jël na ndam li jiitu na leen ndax ba léegi niñ doon yare ci daara moom ñu ngi ko yare ba léegi benn su dóor amatul wala yenn torture yu métti itam su amatul yelwaan amatul jàpp leen ni euh, système bi ñuy jàngale pour yar nit ki xamal ko ni kilifa kilifa la mag mag la borom bi jaaw borom bi jaaw la njiit njiit la ki la jiitu ci daar ji mooy sa sëriñ ki la raw ci daar ji mooy sa sëriñ ki la gën a bidaaw moo la mooy sa sëriñ hiérarchie boobu ñu yar ci nit ñi ba nga xamante ne yow mii nga xamante ne sax jàngaloo ma sama moroomu sëriñ daara bu ma gisee la may ragal sama sëriñ daar gis ko noonu lay ragale sama moroom sëriñ daara gis ko ndax bu noonu lay amee sañ-sañ ci jubbanti ma ci mbedd mi loolu daa war na am mais léegi amatul léegi fexe nañu ba nangu prérogative yi amoon ci jàngalekat yi ngay jàngale te doo dóor ngay jàngale te doo xuloo doo jubbanti doo yar ki ngay jàngal li nga sëq moom rek mooy au tableau amul leçon morale doo ko jàngal njom jom amul benn dog boo xam ne moom nga koy wax pour moom mu xam ni góor la amul lenn looy def ak ñoom muy page booy waxtaan ak ñoom pour ñu xam ni réew mii ëllëg ci seen loxo lay wàcc te bu ëllëgee noonu naka lañ ko war a yore jël ay modèle ay référence di leen nattale xale yi di ko waxtaan ak gone yi am na ci classe bu njëkk noonu la daan def ñun bu ñu musaan di nettali Seydina Omar Ibnul di ñu nettali Omar Aboubacar Sadiq dañ daan dem ba léegi daan joué ay pièces ci ci daara ji laay Imam Mor Seck Imam Mor Seck macha allah moo daan joué rôle Hamza. Abbas ñooñu lañ ñu présenté woon alors su fekkoon dañuy te dañuy wax xale yi toll ci formation ñu ne ñu amal leen bis naka la ñuy mën a taawoo réew Senghor digganteem ak Lamine Gueye comment Senghor nu mu def ba pièce Lamine euh, ba ba pièce Mamadou Dia ba tëj ko tëj lu ko sept éliminer ko complètement yàq carrière naka la ko def comment Demba Diop nu mu ko reyee naka la Senghor def ba Abdou Diouf remplacé ko yooyu ñu koy wax xale yi ñuy xool ñi ci amoon jom ñi ci amoon ngor ñi doon góorgóorlu comment waa PS naka la ñu ponctuer woon ci ci ci ci ci ci ci parti bi nga xam ne fu ci nekk comme ni gars yi bëggee di doxal parti bi politique bi bari lool nga xam ne ni tey foo dem ponk la nga fa woon. nekkal fa parti bi boo demee Saint-Louis euh, euh, Abdoulaye Diaw Simel mu nga foon góor gi Mbamba Girassi soo demee ñoom Robert Sagna ah partout foo dem nit a nga fa koo xamante nii homme de base la loolu moo doon moo doon parti bi naka la ñu mën a loolu bu ñu ko doon jàngal xale yi ak république bi naka la ko doon défendre comme bu barki dem bi ñu jëlee coupe bi naka lañu ñu naka la yi doon delluwaat ginnaaw di tegaat. sunu rangooñ yi woon ci stade yi niñ daan perte ni niñ daan méttee niñ ko daan jooyee am ci faatu fekke ko am ñoo xamante nii màggat nañu yooyu nga di ko tegal xale yi ñu di ko xam looloo tax ëllëg xale bu solee maillot taxaw ci équipe national dana dana bàkkanam bi lay jël teg fële yamala dee ak dund mu wóor ko ni lii da ko war a am bu ko amee da ngay am ak fierté parce que ñëpp ñoo ci jàpp noonu lañu def xale itam di leen former jël xale yi man li ma jaaxal mooy ecole bii nga xam ne ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi fi eh, kan moo leen di ju kan moo leen di wutal liggéey loolu moo jaaxal na ma loolu il faut ñu xool parce que tam nax yi nga xam te ni ñoo ngi koy nax nit ñi dem il faut mu leer xam nga ne yow boo taxee fii di jot xale yi wàccandoo ñu ni ñii ñëpp bu ñu paree leen wutal liggéey te amul benn formation bu ñu leen former du métier du commerce du leneen jàng rek bëgg doon président wala nga doon njiit mbaa secrétaire mbaa ministre mbaa nangam ñëpp mënuñu ko doon ñëpp mënuñu ko doon te sunu doom yëpp ngi jàng donc il faut ñu former xale yi wute leen métier te lenn nag ci liberté bi ñu amoon ñu fexe nag nu ñu ko récupérer droit droit de l'homme ñooy nekk États-Unis di ñu façonnel nu ñu waree suñu réew ñenn ciy den ñenn ciy tedd ñenn ciy torox ndax bu ñu nee droit de am na ñu leen fi nekkal am bureau am lépp sañ a wax à tout moment ñu bàyyi leen xel luñ ca mën a am liñ ñuy yàqal moo ëpp luñ ci mën a am rek lan ñu yàqal moo ëpp il faut que ñu joxaat metre yi gëdd joxaat professeurs yi joxaat directeur école yi ñu xam ni xale yi ñooy suñu yaakaar ëllëg xale yi ñun ñoom ñoo ñuy remplacer ëllëg il faut ñu def ci ñoom jom def ci ñoom ngor def ci ñoom l'islam bu mat sëkk même boo dul jullit da catholique ñu def ñu def ci yow jomm wut benn slogan boo xamante ni dañu xam ne lii mooy li ñu liyee bu ñu ko fayite rek fayit nañ ko waaye bu ñu ko réussir réussir nañ ko loolu il faut ñu taxawaat ci waaye jël xale fexe ba jàngal ko tubaab waaye xamul yaayam xamul baayam xamul maamam xamul kennam bu paree rek nga bàyyi ko mu dem ci mbedd mi bu paree rek nga bàyyi ko lu ñu lu ñu lu ñu réaliser rek sur téeméeri élèves ñaar fukk ci am bac ñaar fukki ñenn ciy dem université ñaar fukki boo demee fukk ci am sance ñi de ñii di taxawaalu ñii amuñ fu ñu jëm ñi dugg ci musique bi ñii nekk ci rab bi ñii nekk ci sport bi bu demee ba loolu amatul te nga toll ci tekk jabar samp kër nooy def agressé agressé donc nañu jël xale yi yar leen tegaat leen ci yoonu siraatu mustaqim jubbantiwaat gone yi mag ñi ñun ñu taxawaat ñun parents yi nañ taxawaat nañu war a taxawee yar sunu doom yi ci biir kër yi jàngal leen ci biir kër yi te ngeen bàyyi xel bu baax gis nga tubaab yi luñ leen wax tooñ leen waaye buñ leen waxul tam tooñ leen loolu il faut ñu bàyyi ci xel tubaab yi il faut que ñu bàyyi leen xel nañu noté woon sunu maam yi di jaay di yóbbu di rey di sànni ci géej gi ña lu mat ñetti téeméeri at jël famille lëm yi ñii yóbbu leen Brésil ñii yóbbu leen Suède ñii yóbbu leen Amérique ñii dem France Afrique gépp nekk ci lëndëm ba tey seen dëkk yooyu ñoom ñoo ko defar sunu maam yee ko gor defar pyramide yi defar raay yi defar meuble yi immeuble yi lépp sunu maam yi ñoo ko def te amuñ ci benn cër amuñ ci dara ci par force wut seeni maam yu jëkkee nekk ay dictateur di tabax di defar nekk ay dictateur di tabax di defar àdduna xëy wërngal këpp ñu déggale sam ne am na beneen diine bi woote démocratie ak égalité ñu xam ni bu ñu continuer ci lii dootu dootuñu am nit ñu ni ko nañu libere nit ñi waaye bi ñuy libéré ni xëy xëy nañu jox suñu indépendance bu fekkoonte ne la ñuy wax dëgg la fa ñuy jàngale seen doom yi fa la ñuy jàngale suñu doom fa ñuy former seen doom yi ñu mën a defar avion di former seen doom yi ñu mën a defar ordinateur di former seen doom yi ñu mën a defar ay ay ay ay ay ay portable wala ñu defar ay seen ñu former seen doom yi ñu mën a defar ay fetal wala defar ay ngànnaay kon fa la ñu yóbbu suñu doom yi waaye bëgg nañu Afrique nekk marché Europe moo tax ñu defar ñu ñu am ñu nekk ay quantité mais qualité yi amul mbooloo mu bari mu mënul defar seen bopp dara waaw bala ngay defar démocratie da ngay xool tubaab ñoom fu ñu jaar ñoom ay dictateur lañu woon ay dictateur lañu ñu woon yu doy waar ndax mu dictateur paasewul ñëw ci Afrique di jàpp di ay nit di jaay ku bañ nga rendi te famille yu bari tasaaroo tey déggante wuñu ay làkk xamante wuñu waaye da xool xam ne kii nit ku ñuul la fii la cosaanoo ci Afrique mais fan la fan fan mooy maamam doo ko xam am na lu jamono laajatul moo tax nu jàngal njàng mu baax mais coloniser nit sax même lu mu bon bon bon bon doole nga ko jaay ak kënu bu bañee nga fetal ko mu no mu dee noppalu mais xoolal ñoom nit ñi coloniser suñu xel yi not suñu xel yi complètement suñu xel yi lañu ñu not complètement nga xam ni doo xalaat ndax nit moom bu dul xalaat li ngay tane bàyyi ma bariwul looy xalaat amuloo looy xalaat xoolal li xew buñ nee buñ nee politique jot na wala ñu ni manifestation am na sa dëkk bu ñuul kukk ak saxaar est-ce que gis nga ko France est-ce que gis nga ko France est-ce que gis nga ko Amérique affaire intifada yooyu foo koy gis ci Afrique rek nga koy gis parce que dañu xëy xëy leen liber liber ngeen am ngeen indépendance liberté de la presse liberté de multipartisme liberté de nangam nangam ñun ñum xëy daane haa ah, alhamdulillahi rabbil alamin kon li ñàkkoon lépp ñàkkoon liberté moo tax amuñu ko woon ba li fi nekk néew ñu bëgg koo taal ci dof ak ñàkk xam suñu bopp bu ñu nee liber ngeen dan ñoo bëgg a gën a jekku ndax bu nu demee ba xeex ci suñu biir ba dootuñu laalante ñoom ñooy ñëwaat woowaat ñu cesser le te leen ngànnaay yi ci suuf waaw fekk na la leen la ñu bëggoon lépp def nañu ko dëkk bu fi am pétrole wala nga am or wala nga am gaz wala nga am ay mbel yu mën a jariñ France wala mu mën a jariñ feneen su ngeen deful attention rek du ngeen ko jariñoo ndax dañuy fexe ba ngeen xeex fexe ba ngeen am ay problème fexe ba ngeen am ay ñol-ñol ngànnaay fan lay jóge fan la ngànnaay yi jógee ban Afrique ban réewu Afrique mooy defar ngànnaay benn defaru ko kon bokk ci sàcc yi bokk ci topp yi wax nañu xool kan la dëkk yi ngay dégg yépp guerre am fa xeex dafa am mais ñoom la mais ñoom la li ngay dégg nii affaire terroriste terroriste terroriste nga yaakaar ni musulman yi ñooy déedéet benn musulman du def loolu bokk ci sàcc yi bokk ci topp yi rek parce que xam nañ ne Afrique ngi yeewu seen doom yaa ngi commencé ñëw ndànk-ndànk léegi il faut que ñu teg leen fitna waaw créer affaire yu jihadiste créer ay affaires yu kenn du xam waaw di ko tuddee l'islam seen noon bi nga xam moom la ñu gën a ragal waaw boo gisee ñoom dugg Sénégal xawle la të mais dañu xam ne Sénégal foo dem njabootu Sëñ Tuubaa nga fa njabootu El Hadj nga fa. lenn lu leen naqari lu war a man ntax ñuy jël ngànnaay Seydi Hadji Malick dindi na ko ci ñun sëñ Touba dindi na ko ci taalibe yi noonu la ko sëñ ma maam Limaamu Laay noonu la ko defee maam bu mag ñu baax ñépp dañu leen a jiitu ci xol yi moo tax mënuñoo jëmbat ci suñu xol yi lu ñu gëm parce que la ngay jëlee kon fetal di ko rey nit nga dem jule ko ñaar ràkk waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na Aboubacar benn bis muy waaxu waaxu yu tàng ñëw ne dara ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Aboubacar jàmm musuma la xamee nii lu xew mbaa jàmm la mu ne ko la ma dese woon ci ay gileem ak i nag moom la saay saay yi dogale sa sàmm ba sàmm yóbbu nag yaa gileem yooyu yëpp yóbbaale sàmm ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alhamdulillahi rabbil alamin Aboubacar dama yaakaar ne ñaar rakk suba yu mbooloo moo la raw ci jàkka ji dama yaakaar sa coono bii ak sa xiin xiin ji dama yaakaar ñaar rakkay suba yu la raw ci jàkk ji moo la moo moo moo moo war a jar lii mu ni ko moo ëpp doole li li may li may naqalu ni mu ni ko perte ñaar rakkay suba teel moo gën a metti lii nga ñàkk waa kan ñoo kan moo nuy jàngal li fan la ñuy déggee li ana kan moo man osé ñëw taxaw jël xale yi def ci ñoom lii budul ci diina ji ci tubaab yi ngeen ko yaakaar ci seen njàngale bi ngeen ko yaakaar système bi ngeen di tëral moom ngeen di jàngal moom ngeen di yaakaar dundal francophone mu dund d'accord francophone dara nekku ci jàng français dara nekku ci jàngal njàng yépp waaye nag nanga jàng sa dignité jàngal sa aaday réew jàngal sa diine jàngal sa personnalité loolu sunu autorité war nañ ci mën dimbali waxuñu njàngum français dara ndax njàngum français dara newu ci xam lépp moo gën réere lépp euh, af euh, ilmu kulli shay'in afdalu min jaliha aw kama qaal kon jàng français jàng anglais dara new ci lu baax la waaye nag jàng français ne veut pas dire ni danga koy jàng ba pare nag ba pare doon leen ñoom di solo ni ñuy soloo di waxe ni ñuy waxe di lekke ni ñuy lekke ba sa diine sax bu ñu xasee am mbooloo wala cérémonie sax jomm nga mel melukaan wu ñu xam ne yow jullit nga heure yi ñuy jël di ko di ko di fa dajale nit ñi jomm ngaa jóg di julli ndax jàpp nga loolu complexe la loolu ñoom ñoo ko def ci ñun fexe ba ñu complexe bëgg a mel na ñoom te duñu ko mel du ñu xees du yàgg-yàgg ba nu mel na ñoom jamono boole mënagunoo tàqalikoo ñoom waaye nag suñu dignité ak suñu personnalité nañu ko sàmm nañu ko sàmm yaraat sunu doom yi nag il faut que ñu jëlaat nag beneen initiative parce que penc mi li ci nekk ci école bi la ci école bi la ñiy jàngale joxatuñ leen cër joxatuñ leen gëdd mënuloo jàngale nit te doo ko duma mënuloo jàngale nit te doo ko yar mënuloo jàngale nit te doo ko teg ci yoonu siraati mustaqim sa yoon nekkul ci moom di jàngal nit mu noonu la wala nga noonu ko si xoog moom dara di jàngal nit bëgg mu yor réew mi ëllëg te mosulaa nuyu xamoo nu ma tudd parent xamu la kenn xamu la salaire nga séq ak moom bu paree pare na ci te nga ne da bëgg defar nit ki noonu ngay defaree nit kon nanu bàyyi xel bu baax xam ni agression yi xew ci dëkk bi reyin wu ñaaw yi càcc gu metti gi yépp dara waralu ko dafay dellusiwaat rek ca la ma jëkk a wax mooy yëlëb gi ñu yëlëb loxo yàlla ci njaboot gi yëlëb gi nu yëlëb loxo yàlla ci doxalinu réew mi looloo ko indi ndax kat bu fekkee dañ ne réew mi réewum laïcité la waa laïcité dañ la wax ni ku sàcc deesul la gis a loxo dañ la wax ni ku rey rey dañ la wax ni laïcité doom moo yilif bàyyi dañ la wax ni laysite jigéen moo yilif jëkkëram loolu nga xam ne moom la ñuy delloo si waat nag nga xam ne daanaka dañ ne mooy jiitu fas moo saret bu jiitoo fas ndax dem dana am dem du am fas bu nekkee ci ginnaaw saret saret fu mu jëm kon bu ñu juutal mbir yi dañu ni abolition peine de moom la ñuy def te abolition peine de mooy ku rey ñu rey la ndax xam nañu ni rey ñu rey la loolu c'est mal civilisé loolu la ñu wax rey ñu rey la nit ku nite du ko def ndax rey gi day gën a bari am ñu jóg nag ñoom dañuy aar àqu doom aadama ñu tudd leen droit de l'homme waaw droit de l'homme bu fekkente ni dañoo rey nit ma yaakaar ni droit de l'homme kay dafa war a jóg défendre ki ñu rey ñu jox koy àqam ba ay bokkam xolam sedd ñu xam ni yéen yéen a ngi aar àq ak yelleefu nit waaye bu fekkente ne nit ki bu xasee ba rey ñooy jafandu ci moom ni bu leen ko rey a tax ñépp dem jóg ñu tabax ay ay kaso tabax ay kaso commandé ay liif ak i manot recruter ay policier recruter ay gendarme tey est-ce que réew mi ñëpp mën nañ leen a tëj kenn mënu leen a tëj te la jël la war a nekk su nekkoon ku tabax école ku nekk war a toj kaso ku tabax école war a tëj kaso ndax génération bi ñu war a tëj ñoom lañu war a defar former leen mooñ leen ba bu ñu ñëwee te ci école bu ñu ñëweetee ci pénc mi doon li ñu war a doon doon ki ñu war a doon looloo jaadu waaye nag bu fekkente ni da ngay bëgg tabax école bëgg a yokk kaso yi yokk personnel police yokk nangam nangam nangam kon xam nga ne yow la ngay tabax baaxul lañuy tabax baaxul lañuy defar baaxul <coughs> nañ ci bàyyi xel bu baax dëkk bi li fi nekk kenn xamul lu mu doon jaboot yépp tiit jaaxle ñu ci bare bare kenn xamatul foo jëm loo denc ñu sàcc ko ñematoo génn yenn waxtu yi sa njaboot man ñematuluñ génn fenn ku ñuy ku la rey dangay ngay perte ndax pen bu ñu la mën pen boo mën tëdd yàgg-yàgg da génn wala nga rey nit ñuy lijjanti la ay kayit daal ni maladie euh, kii dafa dafa dofoon àtte yu dëng yooyu ak xeeti ba fuyee droit nit ki yooyu mënul am ci dëkk mukk loolu yàlla seetaan na leen loolu yàlla seetaan na leen yàlla na yàlla musal ci yàlla yàlla seetaan ñu te loolu nag moom lay xaw a nuru dafa mel ni yàlla commencé nañu seetaan rey gu bon rey gu ñaaw oto yaa ngi jël li ñuy jël ci kaw tali bi safara waa ngi jël li muy war a jël ci àll bi nit ñi ñu ngi rey li ñu war a rey di agressé nit ñi di leen rey ñu mel ne ay weñ di dee te dëggloo kenn ku ko faj bu nu demee nag ba réew mi population bi bëgg di ko fajal seen bopp bu yàggee nag anarchie mooy am ci réew mi insécurité boo xamante ne kenn du xam foo jëm moo fi am te bu boobaa nag du gënal kenn du gënal jenn jaboot ma ñaanaat bu baax atte yii na leen ko xoolaat mooy pen de mort na leen ko xoolaat képp ko rey nit te tey ko nañu la rey yàllaa ko wax gënu leen a muus yàlla ëpp leen yàlla yërmande gënu leen koo xam ni ñuy doxale walakum fil qisaasi xayaatun yàlla nee na bu doon ni di ngeen fayul ku ñu tooñ de di ngeen dund dund gu neex gu nëtëx waaye rey nit di miim aka waat aka lay ba xëy génn taxawaal fële baa ñu xëy wutal la ay këyit nga ne meng ne mentañ dem sa yoon baa nga dem États-Unis baa nga dem France loose fa tëdd fa fekk na yaa ngi toog ci deret joo xamante ne xamoo fan la yàlla mujj ak yow loolu boo muusee ba génn ci waxi nit ñi dem yàllaa ngi lay xaar yàllaa ngi lay xaar ak koo mën a doon ak foo mën a doon yàllaa ngi lay xaar te loolu gis nañ ko fi rey ay nit rek bëgguma su góom waaye député bi ñu reyeen fi bu bëkk dee moo njaay ci Pikine loo ci déggaat furaas dal di xëddën ñu étudiants yi ñuy rey ci campus yi loo ci déggaat ku tiim jabaram di ko jamat ba mu dee gis ngeen ko fii gis ngeen ci réseaux sociaux ku téye ab xale bu ndaw di ko def def jëf ju metti te xam yooyu yëpp mën nañ ko topp ba xam kan la xale bii nu rey ci bërëbu liggéeyukaayam jam ko paaka ba mu sedd guy loolu loo ciy dégg ak yeneen ak yeneen ak yeneen xar moo yeew ñu yeewi béy woo yeew ñu yeewi boo leen dabee ñu génnee ngànnaay fekk nit ci otoom pompe ko jël doo pompe sax léegi xoolal léegi làmb su amee da ngay mel na ku toog ci xel ñu ñi dëkk ci boori stade yi dañuy mujj tëj suñuy kër wàññi suñuy télé yéeg ca kaw tëj bunt yëpp kenn du wóolal sax toog ci suuf ngir lan da ngay ragal ñu dajji bunt kër bi boo yoree scooter ñu mbaal la nga daanu ñu dóor la ma nga nooy yenn yóbbu sa scooter parce que càcc gi dara daf dara daf cee nekk daraa ci nekk yow boo sàccee boo dawee dugg police raw boo duggee gendarmerie raw bu ñu la jàppee yeew la yóbbu la gendarmerie bare nañ ci dañ jékki-jékki si la ngay taxawaaluwaat yamba bi agression yi càcc gi viol yi yëpp gisloo ku la ko fajal léegi nag day dema demal ba population bi ñu pousser leen à ce que kenn ku ne jàpp ni nga war a fajal sa bopp te foofu ne bu ñu fa eggee nag musiba lay doon bu tabaski jotee paaka yi nii lañ koy jaay ci dëkk bi paaka yi jaas yi goobar yi saay-saay yëpp profité ji nag ku nekk jënd nag sa 37 denc amul port d'arme amul autorisation amul benn contrôle ba loola daan mën a nekk booba nit ñi melaguñu comme nii nit ñi melaguñu comme nii waaye gisal léegi ni mel nii rek donc yooyu yëpp nag ñoo ngi koy ñaan ñi ci am responsabilité muy gouvernement bi ñu ñaan leen ngeen yokk taxawaay ndax kat kenn ku ne sàmm nga te kenn ku ne li nga sàmm daañ la laaj noo ko doon sàmmee yor am réew nag mu mel na yii fii daf laa dépassé lu neex waay wax lu neex waay def du mujj fenn koo rey it du mujj ba ubbi nañu enquête parce que askan wi yéen na yi xam ne yii nañ leen bàyyi xel bu baax seen bopp rek leen ñor. gis nga événement bi am pikin ci ndaw soosu ñu rey teewul ñu nga ca list électorale ya ñu nga ca investiture ya ñu nga naka la ñuy ñoom naka lañuy ñuy doone député naka la ñuy mën a diriger réew mi waabale alal réew mi ñoom ñu nga ca waaye ko sax kuñ ci dékk micro nga wax pare sax ni maa ngi jaal mbaa maa ngi naqarlu maa ngi tiislu mbaa nangam la doo ko sa dégg drame bu mel noonu jëye yu mel noonu am cim réew ngay kilifa yëkkati kàddu sax mënu ko cee wax loolu lu yéeme la kon nañu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax euh, di soññ nag sunu yaay yi ak jigéen yi yéen xam yéen a toll ci jur ak ak doom am doom bàyyi leen xel seen doom yi ngeen ngeen di leen nàmpale seen ween bàyyi leen xel ci seen doom yi ngeen di leen nàmpale ween xam ngeen ni lii xew ci réew mii année soixante dix année quatre vingt année quatre vingt dix ba deux mille ba deux mille cinq génération yooyu ñi ci ëpp ñëpp li ñu tanee xar bariwul li ñu tanee bëy bariwul mbaaw nag ndax biberon yi leen daan jox ñu koy nàmp tey ñooñu ñoo taxaw ci pénc mi yore paaka di jam nit ñi ndax yéen mooy loolu ndax boo amee sa doom ni damay liggéey bàyyi ko ci kër gi bàyyi ko mbindaan mi dem liggéey di dàqub dërëm te xanaa amu ne boo gisee ñu ne alali àdduna dooma ci ëpp solo doom boo xasee ba am doom am nga trésor jëlal maternité congé maternité bu ma sëkk nàmpal sa doom ba mu ferte ñu lay fay donte moo ca salaire la boo ca pare nga liggéey parce que jigéen ci kaw suuf mission mooy jur doom ak nàmpal parce que bu jigéen baaxee lépp baax waaye bu jigéen boo nee dara dootul baax jur ay doom nag di leen nàmpale ay biberon meewum nag meewum bukki meewi golo ay meewi xar meew yoo xamul lan la ñuy def ko ci ay biberon defar ko ba mu baax ñu ne leen dem yàqi Afrique doomi Afrique yi bala ñoo yeewu ne leen ñu dem defi leen i dof tey mooy li nga gis nii bu nee manifestation ñëpp jóg waaw lu ñu defar loo xam multi milliards la nga teg ca xalu safara taal di di def yaramu niin mel na ay oliganisme mel na koo teyetul xam nga ne ay nit ñu am conscience du ñu def loolu nit ñu am xel du ñu def loolu léegi nag biberon yi rek la kon nag yéen yaay yi war ngeen jégalu seen doom yi bu baax nii nu mel yéen leen ko def nii ñu mel ni yéen leen ko def nampale biberon xamoon meewum lan la ñu jël ko kon na ngeen moytu bu baax lii jógee bitim réew di fi ñëw na ngeen ko moytu na ngeen ci bàyyi xel bu baax lii jóge bitim réew lii ci ëpp di fi ñëw baaxul guddi baaxul bëccëg moo ñu jural suñu doom yi mooy njula seen doom yi nàmpal leen seen doom yi jël leen seen doom yi ngeen uuf leen ba ñu fer ngeen doo dem liggéeyi góor ñi ngeen jël seen responsabilité parce que boo gisee ñu naan jur leen lu bari lu mel ne lii ca la bokk tey lislaam amat na dëgg ci yéen ñëpp yéen ñëpp a tiit yéen ñëpp a jaaxle yéen ñëpp a tiit yéen ñëpp a jaaxle parce que kenn xamul lii fu mu jëm kenn xamul fu ñu jëm ak lii parce que kenn nekkatul sécurité sa oto boo ci nekkee amuloo sécurité car bi boo ci nekkee amuloo sécurité car bi même njaganjaay bi tata bi as bis heure bu nekk groupe mën nañu dugg génne 37 génne leen fii xaalis maa ñu nangam ngay pat pati kenn su koo gis lii ma lay wax nii ay 1996 dafa dafa nan ma ko fii ci rond point liberté 6 bi ñu dugg doon rek apprenti bi di woote naan. yara yara yara yara ñu ñëw ma dugg yeeg ni xëyam toog booba maa ngi doon wàcc cafétéria dox li des maa ngi wàcc ko sama kàmb dox li des booba booba <laughs> kenn xamaguma ñu dugg toog rek oto bi dafa tuur rek ñeenti gaay dugg génnee jaasi waaw gé dóor ci weyu oto bi dóor ci karisulu oto bi oto bi cel waaw kenn yënguwul man moom maa ngoon ci biir ci saal ba waaye ayatu kursi bi noonu jàng sax man xamul ma ko jànge di muslu waaw ah, parce que ñooy pexe amul di muslu jenn waaye ju ñuy dóor jaas ji ci ci ci ginnaaw gi ni ko tar mu génne li nga yor mu ne xaaral làmb poos bi génnee làmb poos bi génnee ñu ko ci wàccal mu daal di wàcc dox tuuti làmb beneen poos bi daj deux mille daanaka euh, euh, chef am na deux mille yu desoon fii sama poos bu ndaw doo ko fàtte woon am bu loolu jaas yooyu xam nañ ni meewam nag moo nu ko yóbbee meewum nag du ñu nàmp du ñu nàmpal amuñu amour paternel amuñu amour maternel amuñu benn benn sentiment lu la neex def tous les moyens sont bons ku la neex rey ku la neex sàcc ku la neex violer yu ñaaw yooyu di suñu réew xamu ko woon naan ñi nga fi de dëkku fi ñu feek ñun ñoo fi dëkk dëgg mbaay ñu na du kenn ñu na jërë ngeen jëf maa ngi jégalu bu baax xëy na fekk ni maa ngi doon ñëw ak yéen ci jës bu waaye du ñàkk dañ ñëwaat ca bis bee ñu jëm ndax lii dafa fekk mëntu woon a ñàkk yal na yàlla dafa dégg dafa ñu topp yal na yàlla dafa ñu dëgg dëgg jullit seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye doon ci waxtaan wi Oustaz Alioune Sall laay bàyyi place bi léegi incha allah bu ko defee bu ñu paree ñu jox si mbàkk si la ci xamtu bu guddee dinaa ñëwaat rek alxaaji imam Mor Seck incha allah ci euh, al minbar Pape Laye Dieye leen fatigawal moo nekkoon ci technique bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala